classe yu bari boo demee ci collège yi ak lycée yi day am ay vacation de cours parce que du am ay ay professeurs yu yuy manqué waaye it dañuy dañuy obligé ci yenn dëkk dëkkaan yi ñu def li ñuy wax pédagogie des grands groupes muy classe double flux wala multigrade pour que parce que duñu am ay maîtres doy donc loolu euh, ba tax na euh, ministre ta bi nga ko déggee mu def ko yitteem waxtaan ci chef de l'État mu d'accord bi mu d'accordee njëkk na autoriser 3700 euh, enseignants mais loolu. Euh, concours concours bi ben bi déjà 2500 yi ngi formation bi euh, lancé le concours bi pour 1200. nga xamanteni bi bu bi yi euh, ak parce que concours bi ministère bi ci portail semaine dina def lien bëgg candidater présenter dossier après day am le comité qui donc c'est dire que euh, li bo def aussi dafa am wax plan quinquennal ministère dafa décidé ci at yi euh, vraiment affaire enseignant mu donc euh, kon plan bu ñu commencé la ren et sortant par exemple face yi 717 la ñu 363 déjà jël donc ministère bi bañ la jël ñeneen sax ñuy wax sortant de Thiès ñom aussi euh, ñu ngi ci ñu ngi ci xel ministre bi donc ñi ngi waxtaan ak président de la république pour xol ñom ñaari cohorte yoy naka lañ leen dugale ci euh, juróom junni yi ñu war leen euh, ñu wara ñu wara jël lool mom vraiment inshallah ministre bi ci boppam balaa yàgg dina ci jël décision té am nañu yakkar ni incha allah leen dugal ci ci ci ci ci cohorte bi cohorte saint yi. waaw déjà lu am solo parce que amul dossier dépôt physique ñëpp ndax corona bi. ñëpp dañ leen di yónnee benn lien lien boobu nag incha allah dañ ci def dossier yi nga xamante ne bi ko ci ne moom nga war a scanner dugal ko ci biir donc euh, ci lien bi ko ko xool rek euh, di nga ko gis déjà bon de façon mooy dossier classique bi bon ñëpp euh, xam nañ ko léegi nag ñu demee ba nga xamante ni bi lee comité de sélection bi réunir ba jël juróomi junni yi su boobaa nag lañu ñu laajte ay dossier physique